salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar amdi wa zugri li man kulli bi saa lawridan doona suuqtin inda sarsara له صنع واريد وعن البلا سقات مسقاد لي من بني ديمان أنصاره asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki amaat na mbégte taxawaat fii ci Sarsara ci pàkk bu sell bu tedd bii nga xam ne fi la Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul nekkoon ci gànnaar te mag ñi daan ko fekk si di siyaarewaat ak a nemmeeku jéegoy Serigne Touba Xaadimu Rasuul mbokki loolu ma waral ànd ak yéen ngir fas yéene rek teewaat ci jotaay bu tedd bii bu la seenee xayma yooyu sama ginnaaw wala ngeen gis jàkk ji sama ginnaaw da ngeen xam ne ñu ngi waat pàkk bu sell pàkk bu mag li ko waral nag mooy Seexul Xadim Serigne tubaa moom bërëb bu ma sa nekk rek samp na fa daara waaye samp na fa jàkk itam moo waral jàkk ji ngeen gis noonu sama ginnaaw lu ko waral moo waxoon ne kaano ibadan bi taatin rabbihimo wa kaana jàlla lahum rabbam bi minaati dikkuk Serigne Touba Xadim Rasul fii ci gànnaar ci rawatina ci pàkk bi di Sarsara lan mooy soob si lu ko waral ba tax ñu indiwoon ko fii ci gannaar loolu lépp danañ ci ànd ak yéen tawaay kajoor a gën sunum réew Cheikh Bamba mbër ma fa feeñ feeñut fa gànnaaraay ñu ngi sant yàlla bu baax cay ànd ak sunuy mbokk waa Tawfekh Production ci njiital sunu xarit sëñ Moutala Gueye ci taxawaay yi mu nga xam ne mi ngi koy amal ngir waajal màggal gi di fas yéene waxtaane benn xaaj bu bokk ci dunduk sëñ bi cay doon xaaj bu am solo ci dundam loolu mooy tukkib jéeri ji ñenn ñi gën koo xam ci yoonu gànnaar wi ku ne xam na ne sëñ Touba dund na ay étapes yu wuute du nekk na fii ci senegal am na diggante boo xam ne nekk na ko bitim réew ce ca nekkewu ko fa tam woon ko fa ngir sabab génne yóbbu ko fa tubaab yi yóbbuwoon bitim réew nag am na ci xaaj boo xam ne Gabon la woon ak réew yooyu mu jaar yëpp waaye am na ci beneen xaaj bu riis nag lool ca Murtani la woon sëriñ bi kañ na dem Murtani bi mu ci géej gi ba am fi ay weer rek bi at mi daataa dellu si dem na Murtani te ku ne xam na ne ci géej gi 1902 la fa jógee bi mu ñëwee yàggaatu fi ay weer rek la fi am. sabab yi njëkkoon a am mooy jaxase nit ñi di ko jaxase ak tubaab yi tubaab yi di ko tuumaal naan dafa yor ay ngànnaay foofu ci këram googu ci daaru mar naan ba la ca xewe xew tubaab yi dëppoo ginnaaw biñ ko wooyee bam dem ndar dëppoo ne dañ koy yóbbu gànnaar exilé ko fa ngir lu baree bari sëñ bi kone xam na ne euh, li tubaab yi njëkkoon a gën a bëgg sax mooy yóbbu ko fa gën a sori waaye nag sëñ bi ab xaritam wëllëreem di kilifa gu mag gu nekkoon ci gànnaar ñu ko wax Cheikh Sidiya baaba di doomi Cheikh Sidi Mouhamad di doomi Cheikh Sidiya al Kabir nekkoon kilifa lool ca seqoon ak sëñ bi relation yu bare bëri ca wuute sàkk woon ci tubaab bi jamono yooyu ci yàlla dogal nag xam nga dafa jaxasoo woon ak ñoom lool ne leen bii yoon bu leen ko yóbbu fu sori waaye maa ngi sàkku ngeen indil ma ko gànnaar dinaa leen ko garanteel loolu bokk na ci tax ñu Cheikh Ahmadou Bamba bi ko fi tubaab yi indee yaakaar ni dañ koy suufal far ñu am ci mbetteel ndax fii am na fi ay kéemaan yu bari yoo xam ne ci zahir ak ci baatil la kooku ma dellu di ci wax sax dafay dafa dafa koy wàññi ndax ñëpp xam nañu jaar-jaaru sëriñ bi fii ci Mauritanie ndax fekk na fi ay kang foore ay foode ñu am xam-xam ci wàllu zahir muy waa Cheikh Sidiya muy Oula Deyman muy Tejekanit muy dawaali xeetu naar yu bari yoo xam ne ràññeewal nañ leen fii ci xam-xam waaye bi mu fi ñëwee xam-xamam daal daal dafa feeñ mooy xam-xam loolu mayu yàlla la moo ko ko may ku yàlla may kenn mënu lu ko dara. dëgg la nag tubaab yi ku leen xam danañ foog boobu ne bu demee gànnaar am na noo xam ne du ñu feeña am na noo xam ne dayoo boo xam ne du ko am ci la demee gànnaar. demaay bu dem bu siw boobu kom na mu demee woon Gabon rek àndut ak doom ba muy dem àndut ak soxna ba muy dem waaye demee na mu métti rek ànd ak ñu néew bokk na ci ñaari naar yi ko gàttandu si woon te Cheikh Sidi yebaloon leen bokk na ci ñu néew ci senegale yi sax kenn wala ñaar muy sunu maam jooju sëñ Mat Jaw Paxa waaye ba mu duggee gànnaar dafa mel ne am na lu ko yàlla suñu borom subhaanahu wa Euh, wan ci sekkereb tukki boobu moo tax mooy sabab si li tax mu di ko fa yóbbu dëgg dëgg wan ko ne ko kaw gi bu nuroo ne dañ laa génn yóbbu la fa waaye nag li ci biir dama la fi andi ngir bëgg laa fay ngir bëgg laa teral loolu la ñu sëñ bi di nettali ci ay wayam naan man zanna sayri ribba aami ak sasin misla masiri rasa aami jay sasi sabata kawnuhu jahulan xumra bal huwa tatyibul ali lil umra lam yaku sayru ak sasin siwa jaza man li yaqaada baxdu wax dan na jaza mooy ku jot ne suñ ñaari sama ñaari tukki yi benn la kooku du nit ñëw gi ma ñëw gànnaar yàlla dama ciy xéewale di ci neexal sama dund di ma ci fay ay fay kon nag xam ngeen ne réew la mu ko yàlla yebal mu ngir fay ko fa loolu li koy tegtale mooy gànnaar la fa xew bari na suuf su neex su neex a jaamoo yàlla tax na ba bi fa sëñ Tuubaa dem fu mu romb beeñ bu rafet rek ne taxaw leen fii de neex naa jaamoo yàlla julli fa ñaar rakk continuer yàlla dogal na gànnaar nekk na fa ci béréb yu bari yu wuute ñu bari it fekk nañ ko fa yàlla dogal na it may yu baree baree bari am na ko ci gànnaar bokk na ci béréb yi nga xam ne nekk na ko fa cam gën a siiw mooy Sarsara ku ne xam na ne Sarsara mooy xolub gànnaar tax na ba gis ngeen fi ci Sénégal ñu koy tudd ay dëkk di ko tuddee lu nekk gis ngeen màggal gu mag ga nga xam ne mbokki taalibe yi ñu ngi ko fay def ni nga ko waxee moom la ñuy def at bu ne muy màggal Sarsara bërëb bi tedd bi bërëb bi nga xam ne fii la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fay ñu jihaaran euh, Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh al Khadim mu jox ko wirdul maxuud euh, kon bërëb bu tedd mi euh, mi ñuy màggal chaque année mi ngi alhamdulilah di avancé parce que ñu ngi commencé ci vingt trente personnes yu daan màggal Sarsara fii il y a dix neuf ans boobu ba léegi def na fukk ak juróom-ñeenti at léegi ñu tey tey ñoo ngi yaakaar ni tey juróomi junni war nañu fi nekk tey ci pèlerin yi kon loolu euh, mayu yàlla la ma nit may gërëm yàlla ni mu mayee ma fekk ko dix neuf ans. li ko waral Sarsara lim symbole ndax sëñ sëñ bu mag bi Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu mi nga xam ne dafa bëggoon Mauritanie. ba tuddee ko ardu saalixiin moo suufus nit ku baax nit ñu baax nit ñu baax ñi tu bëgg murtani lool bëgg murtaniyen yi lool nag yàlla boole kook ñoom tax na ba Touba gii nga xam ne ci lañ nekk dañ daan wax ne kër Serigne Souhaïbou bu kër ci kër Serigne Touba yi la bokkoon waaye fu mu daan dalale naar yi la naar gànnaar yi kon yàgg yàlla yàgg na ko boole ñoom xam ngeen ne Serigne bokk na ci njàngam li li mottali njàngam loo xamante ni mi ngi ko jàng woon ci benn ay naari gànnaar yu bokk ci banu deymaan te nekkoon fii ci dëkk bi nga xam ne moom la ñuy wax njaañ kon yàgg yàlla yàgg na ko booleeg ñoom xam ngeen ne it liñ seqoon ak ñoom bari na bokk na ci wërdu wi nga xam ne mooy wërdu xaadir ca bi yoonu murit amagut lenn ci bokki Serigne Touba wala boog ñi ci gën a bari doon ko jëfandikoo xam ngeen ne wërdul xaadir la boo xam ne mi ngi jóge Cheikh Sidil Muxtaar Kunti jaare woon ci lenn ci ay taalibeem ku mel ne Cheikh Sidil Kabir ak leneen ci ay magi taalibeem kon li ñu booleeg ñoom bari na tax na ba sëñ bi dem na fa ay yoon njëkk ñu ko fay exilé tax na ba sëñ bi bi mu tollee ci wër nga xam ne fu mu dégg lu baax dem fa dem na gànnaar dem na fa bari dem na ci waa kër Cheikh Sidi dem na ci waa tarixa Chazaliya dem na ci tarixa Tijaniya dem na ci mboolem kilifa diine yi fa nekkoon waa kër Baabul Hamdi muy tarixa Chazaliya jamono jooju rek boo ko xoolee da nga gis way yu bëree bëri tawasulaat yu mu def yoo xam ne ci jamono yooyu ci la ko defee woon bokkut ak nag yoonam melokaanam mujj wi. bi mu demee gànnaar sar saara bokk na ci béréb yi gën a ràññeeku yu mu nekk waaye nekk na it fu ñuy wax jaraariya nekk na fu ñuy wax muraya ca ñun ñu gën ko tudde xumaag ca mu yàgg fa lool nga ne fa la jóge ñibbisi waaye niki noonu nekk na fa yeneen béréb yoo xam ne yàggu fa lool dafa jaar ak jàll fu mel ne bu bakkaay fu mel ne adabaay fu mel ne aftuut ak yu mel noonu tanaameeru yu mel noonu dafa jaar rek jàll waaye fi mu gën a yàgg dëgg-dëgg sar saara fa la defee xasidaam gu siiw googu nga xam ne jun na fa ci lenn may yi nga xam ne yàlla may na ko fa ca may yooyu bari na alladina sardara qasadu siyaaratin faaraxu daarayni aw saara li ci gën a ràññi ko ma nga amee woon ci koor gam fa njëkke woore ci ba mu fay nekk 1903 jooju ci weeru koor mooy yàlla jox ko wérdu wi nga xam ne mooy wérdu murit di wérdul maxuus min allah ci foofa la ko amee woon ci koor gi xam ne foofa la ko njëkk a joxe jox na ko fa ñu bëree bëri da ngeen xa dégg ñu ne sëriñ Amsatu Jaxate moo ko ko njëkk bindal da ngay dégg ba tey ñu ne leen Ahmad ibnul Hasan bokk na ci ñi nga xam ne ñoom la ko fa njëkk a jox foofu wérdu woo foofa ca Sarsara ca Cheikh Ahmad ibnul Hasan moomu taalif lu bëree bëri bëri ci wérdu wi sart yeeg waxtu yeeg yi koy mottali yi koy rafetal li nga xamante ni lépp aju na ci wérdu wi Cheikh Ahmadou Ibnul Hasan moom def na ko ni ki noonu ba tey foofa ci Sarsara xew-xew yi fa xew woon bari na sëñ bi junj na ko wane na ne yàlla may na ko fa fat lool ubbi na ko fa tax na ba mbooloo fekk si ko fa jaayanteeg moom Cheikh Sidi Bou Ahmadou Lismuhu Daymaani bokk na ci njabootuk Cheikh Mohamad Yadaali ci ñu ñu bëree bëri ñoo xam ne fekk nañ ko fa jaayanteeg ñoom seq ak ñoom lu bari ku ci ne it lu mu lay liggéeyloo ñii mu leen di jàngaloo alxuraan ñii mu leen di jàngaloo xasaayit ñii mu leen di bindloo ba ci ñenn ñi sax mu leen di tariloo rek wayi arab yi nga xam ne yu neex la cañ ci daan tagg bi ak yu mel noonu eh, ak ñu baree bare nag ci mag ñi fekk nañ ko fa da ngeen di dégg eh, ñu naan leen njabootu njabootam gi ñu ci bari nekkoon nañu moom Murtani ku mel ne Cheikh Mahmadul Moustapha ku mel ne Cheikh Mahmadul Fadil nekk doon ba tey eh, ku mel ne Cheikh Mahmadul Bachir ba ci sax da ngay dégg kenn ci njabootam gu jigéen gi ku mel ne Soxna Astu Gaawaan ñu naan la jamono yi mu nekk foofa ci la ganee jamono donte nag bi mu ganee jamono rek ko lañ ko delloo si ci Sénégal ci déglu sëñ bi da nga dégg magi taalibe yu bare bari yoo xam ne nekk nañu ñoom moom murtani ba ci sax am ci ñu fa wàcc liggéey comme bokk na ci magi sëñ ko ñu xam koo xamante ni foofu la wàcc liggéey maa ngi jàpp ne ñu ngi ko denc ci armeel yu jege lool xumaag fa ñu wax ñil fa nekk na sarsaara fa la defee xasidaam gu siiw googu xam di wa shukri liman kulli bihi saara lahu ridan duna suxtin inda sarsaara ba xasida gi jeex salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar